sànq euh, sama xarit sama confrère Pape Alé Niang bind loo xam ne euh, neexut a dégg mais mooy li am mooy li ñuy woowee karma daa nga dégg série karma karma su ma ko mënee tekki rek ci li nga xam ne mooy euh, li wolof yi di ci wolof yi ñu mën a dégg mooy li wolof di wax ne loo rend rek sa loxo lay naaj loo bañ ñu def la ko rek bu ko def kenn ndax bu ëllëgee na la ko def bul fàtte ne président Macky Sall wala beaucoup nguuru président Macky Sall D'ailleurs, fait le principal opposant au à leur régime Ousmane Sonko Ben juge àttewu ko n'est nañ ko yóbbu ci kaso benn autorité judiciaire jëlu décision ne bu génn këram kenn placé wu en résidence surveillée ñu jël ay alkaati yi ñu def ay barrières ci fi mu lu mat daanaka ñaari weer tey boo xoolee image yi nga xam ne moom laa mujj gis gis na président Macky Sall à New York nga xam ne euh, d'ailleurs xam naa dinañ ci ñëw lan moo tax ay borom doole yi mu daan àndal ak yooyu gis ñu leen nga xam ne tey boo xoolee image yi président Macky Sall hôtel bi nga bu ñu wax ne fa la nekk ak alkaati américain yi ni ko wëree boo ko comparé ak photo alkaati yi nekkoon fii ci euh, cité kër góor gi daanaka day nuroo loolu moo tax ñu euh, ku mel ne Pape Alé Niang bind ci kiiwam karma parce que en réalité wax na dëgg nit lu muy bañ ñu teg ko ko bu ko teg kenn beneen bi mooy bi Ablaye Wade di jeexal nguuram ñu doon coow coow troisième mandat mais Ablaye Wade warul bokk ci élection yi Ablaye Wade forcé na dana ca bokk opposition bi fi nekkoon te APR bu Macky Sall ci la bokkoon nii lañ defoon bu Ablaye Wade demee woon à New York ci une session des Nations Unies wër ko di ko di ko di ko yuuxu donc bu ñu doxee tey ba jamono toll fii mu toll ñu wër le président Macky Sall am na sax ñoo xam da naka dañ ne euh, ab fugitif la ça rappelle le fugitif de New York ben film la Diko wër ci New York pour fumu nek ñu taxaw fa yuuxu taxaw fa wane sen nakar. image bo xam la dang koy nakar parce que tu te dis quelque part que ni Macky Sall fu muy dem rek Sénégal la yobale. parce que moy président moy président au Sénégal mais li jotta a moy lan moo tax.

Sénégal ni mu divisé woo actuellement loo ci mën ci dégg mu neex ñu mu naqari ñu mooy réew mii nga xam ne Sénégal muy réew mii Sénégalais yi bokk jamono ji nii la def amul fenn fooy dem te doo fekk ay division même si biir suñu famille les gens sont divisés soo demee ci euh, euh, nu ñu koy sax organisation religieuse les gens sont divisés Soit demain dans les organisations politiques les gens sont divisés Soit demain dans l'administration, les gens sont divisés Soit demain dans les entreprises de presse les gens sont divisés C'est ce li nga spectacle qui man moom laa a à New York ces 12 dernières années yi nga xam ne moom la Macky Sall le Sénégal nan la Sénégalais est séparé ils ne sont euh, d'accord sur rien il suffit que yow nga far camp bi wala nga wala ñu sax parfois même euh, duñu ñu far soupçonné sax ne kii ci ñi la bok lo waxati ñu xalam ñu dégg keneen noonu keneen noonu donc loolu mooy li nga xam ne moom la njëkk constaté te les presque dizaines de délégations yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw euh, ci session boobu am New York bari na ci ñoo xam ne ñu ngi jóge Afrique bari na ci ñoo xam ne ñu ngi jóge ci yeneen réew mais li nga xam ne moom la fa Sénégal wane kenn gisu ko benn délégation wane ko fa man nag dama yàgg wax benn affaire man dama yàgg wax depuis euh, mars 2021 mille damay wax ne man bokk naa ci ñi nga xam ne quel que soit lu Macky Sall mën a def am na ku ma bind dee bu ne ma man je ne te comprends pas li leen Macky Sall teg yëpp nga naan da nga koy souhaiter une sorte honorable mais li ma bëgg wax foofu mooy l'homme Macky Sall en réalité man ne m'intéresse pas ne m'intéresse pas s'il n'était pas président de la République du Sénégal du ma wax ci moom très franchement mais le fait vous président incarner une institution comme euh, comme la Présidente de la république nga Abdou Diouf le ne Sénégal ne parce que père de la nation le traduire par sénégalais ñu ne père de la nation ne veut pas dire ça mais Mansour Baydan est le gardien de la constitution le chef suprême des forces armées kooku li mu nous pour nous. dafa ma lu lu lu une sortie honorable mais qui moom rek moo ko mën a may boppam moo ko mënoon a may boppam parce que là c'est trop tard ce n'est plus possible Macky Sall man j'ai j'ai l'impression wala je crains wala gëm naa il va sortir par la petite porte mais su fekkoon ne bi mu gagné élection wu 2019 opposant bi taxaw ne gañewul dafa luxus élection yi da koo njuuj njaaj booba su taxawoon tàllal loxo sénégalais yépp opposant yeeg société civile ak ñëpp ne leen benn mandat moo fi dese mënuma koo ñaareel mënuma ko ñetteel dama leen woo yéen ñëpp ñu ànd liggéey réew mi suñ ca tollee dinaa tànn sama candidat ni kii mooy suñu candidat wu parti mu dem wuti 2019 su ko defoon Aïcha tey jii sénégal yi benn la ñuy doon te dinañ ko teral quelque que soit luñ ko doon projet ci mandat bu njëkk mais Macky Sall deful loolu il a choisi le chemin du politicien bi nga xam ne il ne voit pas plus loin que la prochaine élection ce politicien là bu nekk président Macky Sall moom moo il s'est évertué à écraser ses adversaires ben par ben, ben par ben, ben par ben, ben par ben. Lol, d'ailleurs euh, sa fameuse expression je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression à chaque fois sénégalais di ko fàttali bu mu écraser euh, te fi mu Moi, d'ailleurs non, Benno Bokk parce que faire un ba PS AFP LD ak parti yi nga xam ne yëpp ñoo ci représenté dara

woote résistance comme ni leen ko constitution bu Sénégal de 2021 mars 2021 ba 2023 lu yàgg a juillet 2023 xoolal xeex boobu ni mu yàggee pas quelques jours c'est pratiquement deux deux ans. le lu bëri xew na lu bëri xew na ba ñu agsi fi mu agsi mu renoncé na bi mu renoncé Thierno Alassane Sall wax lu am solo Macky Sall a renoncé à un troisième mandat mais il n'a pas renoncé au pouvoir c'est exactement ce qu'il est en train de faire mooy fexe ba euh, képp koo xam ne man nga tee candidat d'ailleurs moi candidat mais comme je candidat un candidat, ñëwaat mu un candidat mais que je bëggoon faire, c'est un candidat. bëgg ba képp ku candidat nga président Macky Sall bëgg C'est li qu'il indi li New York nga xam ne sénégalais taxaw Ils taxaw là di montrer ay images des images horribles ay jeunes yu ñu au Sénégal ay ñu ñu jàpp ay ñu ñu des nangam pendant président bi nga xamné dañ koy woy un démocrate mi ngi wara exprimer wu à la tribune de l'ONU et lolu je pense que Sénégal mënoon na épargner boppam image boobu mais kiko ko mënoon épargner Sénégal deug deug deug moy le président Macky Sall. parce que man gëm na né su fekkone li ma doon wax en 2019, commencé won nako tay bu démé New York ñu xamné c'est la dernière fois bu mi fekké cette session là Sénégal yi nek New York ñu farak mom ak ñu farut ak mom ñoo naroon a génn di ko di ko njukkeel di ko tàcc loolu mooy mais comme de Foucault, il a récolté ce qu'il a semé.